alxaaji Mbacke Diop ak Mame Ndokh TV Serigne Moustapha Sy Al Amine yàlla na fi yàgg te wér te ku ne Amine yàlla nga ci bokk mu ngi noonu nag ànd ak taalibi Seydi Alxaaji Maalik ji tabarakallahu mbokk i gis ngeen ko mu ngi noonu ànd ak imam Moussa Niang ak doomi bàjjan nañu rek Pape Cissé di doom ci soxna mul xayri si mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy teg ba ba fan la jëm nag ma nga jëm ci fi Serigne Babacar Sy Mouhamadul wax ni nañu fa burde tabarakallahu mbokk yi mu ngi noonu dem yëpp ñu ñëw ngi noonu mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV waxal leen ma Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ni ko alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV neen da la bi la la bëgg sëriñ bi yàlla nga am téeméer at ci barke yonent bi mbokk noonu lañ koy defee bis bu jot ñu ànd ak yéen dem ci fi nga xamante ni fi la sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour wax ni nañu fi burde waaye oustaz Modou Fall ngi noonu sama xarit bi sama doom nday mbokk yi taalibi Seydi Hadj Mar yoon kooku mooy imam Maodo Diop tabarakallahu di ñaan yàlla lii yàlla nañ ko fekke ay at yu bëri bëri bëri bëri tabarakallahu kër Seydil Hadji Malick yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke yonent bi mbokk yi gis ngeen ko taalibe Seydil Hadji Malick yaa ngi noonu ñoom ñëpp seen xol yi sedd ci Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour wax ni ki nga xamante ni mooy alxaj dut kenn mbay ak ki nga xamante ni mooy alxaj Abdou Aziz mbay waaye Serigne mbay ngi noonu di set ci góor gi Babacar Diop Njaxeer tabarkalla ñëw tey fii nga xam fa la maamam ja Serigne Babacar Diop Njaxeer daan toog ci wetu Serigne Babacar Cheikh Ahmed Tidiane Diène a ngi noonu nag di doom ci góor gi oustaz Diène waaye Serigne Assane Sy tabarakallahu bokk ci njaboot Cheikh Seydil Hadji Malick waaye di oustaz bu baax fii ci xadara bi kookoo ngi noonu Serigne Abdoul Aziz Sy bu Serigne Moustapha Sy Al mu ngi noonu tabarakallahu di jàmbaar waaye Serigne Pape Malick Diop a ngi noonu nag di doom ci soxna mu kël so yi mu ngi noonu Alhaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV Serigne Moustapha Sy Al Amine ñu ngi lay ñaanal a dëgër ci barke sa xadara maam bi Serigne Babacar Sy ngi noonu bu Serigne Moustapha Sy Al sama oustaz bi ma jàngal alquran tabarakallah mooy muallim bi nga xamante ni dars joxe bu nu burdee ba pare pare moom mii mooy joxe tëralin bi pap ñu ngi lay ñaanal yàlla nga ko yàgg def ci barki yonente bi aji mën sóor a noonu sama xarit bi waaye Sidi Ahmad Mbaye noonu nag di doom ci daw gur Mbaye kooku nag mooy jaaxa Mbaye di sët ci musa Ale Mbaye waaye papa Naar ngi noonu Chérif Mbaye papa Ndeye Fatou Mbaye sama xarit waaye Alxaaji Daw góor ngi noonu nag tabarakallahu di jàmbaari fëkk di doom ci ki nga xamante ni tabarakallahu mooy góor gi Moussa Ale Mbaye jàmbaari fëkk tëddi yaa ngi noonu nag di leen ñaanal yàlla yàlla ngeen yàgg taxawee ci barke yonent bi sama imam yaa ngi noonu nag taalibi Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi taxaw ci xadara bi di defar xadara bi bàyyiwunu xadara bi bis bu jot ñoo ngi ci xadara bi di xool nu mu gën a baaxee ñu def ko fa leen Seydi Mouhamadou Mansour bàyyi woon de tey bu del siwaatoon durus tabarakallahu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel leen ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag alxaj dut kenn ngi noonu di dog a ñëw ci burdu bi tabarakallahu lii yàlla na wéy mook Abdou Aziz Mbaye tabarakallahu kër Seydi Hadj Mar yàlla fi yàlla def jàmm alxaj ma jub ak mam